joxaguñ la xar. yow. <laughs> daanaka defe naa maa ngi dégg sànq xaw ministre de l'élevage xaw ma li ngi def affaire bu extraordinaire ah. waaw ah. ah, naa est-ce ay point de vente yoo xam ni. ñoom seen bopp dañoo fixé xar yi. waaw ñoom dañuy ñu ngi. jaay ah, alaaj loolu day yàq liggéey bi. non loolu baax na. day yàq liggéey bi dimbali nit ñi xarul suusu quatre mille ba cent cinquante mille la. waaw loolu day yàq day yàq suñu liggéey bi alaaj. loolu kay nit ñi nañ dem. war a ba déwén mais ren nañ bàyyi. gaa jaay non non non loolu baax na. donc kay boobu déwén moom. Mm. ay ñaari weer ñu commencé teg jéego yii ñu teg. déwén moom ku ñëw xam ne. waaw ministre de l'élevage lu tax muy def lool. ah dimbali askan wi. xam nga li ngay jël ay xar. waaw eh, mais daa waroon xaar ba gaay dëgër di ko maye. am na nooy caché prix loolu. beneen gis-gis la xam nga man say question bu mais loolu alaaj est mu wër est-ce que mu wër dara de wax ñoom ni leen nag teg leen mbiri ci yoon comme ni El Malick def xam nga El démb dem na ci chauffeur ni leen nag seen ñàkk yërmande gi baleen ko ah. fu ñu waroon a fayee sept mil nga fay fa quinze mille fu ñu waroon a fay cinq mille nga fay fa dix mille loolu nag itamit alaaji waaw waaw loolu mu leen dama ne est ministre bi yor élevage wuru def loolu xam nga xam nga nii da nga may déglu chauffeur si duñ ko def billaay duñ dem comme leen maanaam nee na ñàkk yërmaande gi ngeen boole ci mbir yi bu ngeen ko doon jëmale sax ci ñu am doole ñu ne waaw mais da fekk koo xam ni dañuy nootaa lim korkorol néew mhm. ngeen ngeen foqati ko ci poos na yàlla am na koo xam ne fii la roccee saako soble ba mu war a jënd mu a jënd ci soble ak pomme de terre xam nga ni 5000 ñun la 10 000 7000 ñun la 15000 xamala la ñuy layee hmm. ngi wax nañu nañu fixé euh, prix yi te euh, essence beeg gasoil bi wàññeeguñ ko loolu tamit hmm. warul tax lu ku war a fay 5000 francs nga ne ko 10 000 ngay fay hmm. mais ñoom chaque événement noonu la def te del xool barki yàlla duñ ko bàyyi non bañ a bàyyi <laughs> ma jigéen affaire ñu ne ko 10 000 ngay pass te yi day am ay contrôle déggoo mu ni déggoo mu ni ci garage bi am na ñu fi nekk di contrôler mais du bi rek la yabe. waaw waaw waaw la ñuy di yeb. xam nga loolu problème la bu yàgg am. waa mais gëm naa ne gis nga ni almalik demee nii. Hmm. wax ak chauffeur yi. Hmm. signal la pour boo defu ndànk beneen tabaski kii buy ñëw. Hmm. danañ jël yeneen dogal gis nga nii nga xamante ne moom la ministre de l'élevage def nii. waaw. ah mais ministre élevage daa waroon bàyyi ba déwén tàmbalib kii la daa waroon bàyyi ba déwén non baax na xam nga xam nga déggoo la ñu wax ñaari point de vente defe naa la am fu ñu nekk dégg naa xaw ma ay côté jaxaay ak defe naa west west fois xaw ma west fois kon de jeex na kon déggoon naa ko daal non non non non jeexul de hmm. non loolu xeetu kii la quoi xam nga boobu demee xam naa di nga am xar mu baax borom kër yi dañuy faaw nga dimbali la en tout cas loolu xalaat la boo xam ne bi hmm. xalaat bu jara kii la léegi léegi ñi defaloon seen i xar di ko yar dépense ci xaalis waaw nañ jaay du prix raisonnable hmm. prix raisonnable dem benn waaye nee na moom xaram yi lim lim lim lim calcul rek dépensé na ci un million deux cent waaw ñaata xar la yor ñaata ñaata xar la yor du gétt gu mag de ay quelque xar rek ñaata xar même bu dee du gétt gu mag bul ne ki un million deux cent rek ci ñaata xar hmm. waaw ma wax ñaata xar bu waxee léegi ñu audité ko wax ko xar mu alaaj yaay audit xari ja non alaaj nag ak ñaata xar ak yor lu dul quatre-vingt-quinze mille xëy di wër si dara li ba sonn du ñu am ku leen ba àdduna baax alaaj ba jamonoy baax soixante mille nga am xar xam nga noonu la daan demee noonu la war a demee waaw nga am xar tabaski xar yi nanguwuñ koo jaay par kilo waaw léegi nag alaaji xar yi dañ ko war a teg weñ gaa nga bañee ca mbànjaxaan kilo ndawal lu muy jar ndawalu xar alaaji bul bul dugg foofu alaaji bul dugg foofu non il faut dañoo war a peese xar yi peese waaw billaay a na dëkk yoo xam ne boo fa demee dañuy peese xar mi sooy léegi loo bëgg a calculer non kii laa bëgg a calculer kan dama bëgg a calculer léegi xarum kii xarum cinquante kilos hmm. xar mi président jëndoon kilo mat na cinquante kilos war na koo jege de. war na ko jege defal cinquante kilo kilo quatre mille léegi ah, ah cinquante kilo kilo quatre mille nañ nañ def cinquante nañ def kii rek. cinquante kilo kilo quatre mille ah. cinquante mille euh, cinquante fois cinquante ah fois cinquante waaw mu jox la deux cent mille te xar yi benn matu ci cinquante. xar xar cinquante xam nga na la mooy seen xar yu ngand yooyu ñu kii gis nga xar yooyu hmm. daanaka ñooy cinquante kilos léegi xar yéen ñooy cinquante kon donc mooy kon kon xar yi ñoom Mor Sarr lang-langal fii hmm. eh, eh, eh, des quarante kilos la moom <laughs> yaa tudd Mor noonu <laughs> yow de tey nga dee <laughs> doo bàyyi doo bàyyi Moussa. yaa ngi yaa ngi dégg. ma jigéen xar yi ay trente cinq kilos lañ. yaa ngi dégg ah trente cinq kilos lañ xar yi. xar yi trente cinq kilos lañ. kon ñu ngi a jar cent quarante mille. cent quarante mille waaw. cent quarante mille yaa quarante mille. alaaji donc. Euh, gis nga gis nga jeeg mii di wax. waaw ah? buñ ko indiloon xaru coggal yi xam nga lu muy wax. ni ko nag xoolal sama nawle yi gis nga diw diglu rek xaaral non xaaral rek waa xaaral rek xaaral mm-hmm. bu ma nee ma jigéen maanaam sa classe gi laay wax bu ma nee wañ weñ baa nga bañee ca mbajaxaan nga xar yu mag yëpp jigéen ñee ko fi indi ay rey mu dee rey mu dee doo ma ko dugalal sama nawle bi gis nga nangam mm-hmm. man lii bu yaboo ma ba di ma ko indil tabaskee sama kër yaay moo ma gënal tabaskee fii kon mais loolu nag ci góor yi ah loolu ci mais dégg sa gars yi jënd naa madam xaru madam sooy bu loolu ci mm. góor ñi la góor ñi ñu nekkee ci góor ñi. waaw ah déet man damaa xam ne woon mosuma yóbbu xar ñu naan ma xar mi. li ray mu dee rayu mu dee sama sama moom. Hmm. kenn calculé wu ko yow kañ. say tisi ngay calculé waaye sama xar. Hmm. man maay waaw la ma sama bopp hmm. xar la. waaw sama xar la ay kon xar la. Ah, ko amoon na mais léegi gars yi koy <laughs> ah, ah. la. noonu nga koy waxee. ah waaw ku bëgg ku bëgg xar mu mag di ma jëndi. non xam na ko. wax euh, xam nga c'est que ñi taxaw naan leen xar mi lii xar mi laa ñooñu tamit nañu xoolaat seen bopp seen ab taxawaay dañoo bu ñu amee dañu war tabaski xam ne am na ñoo xamante ni bii hmm. balaa ñuy jëndum xar jiital soxna si naan koo xoolal xar hmm. kërëb kërëb te yoroo lu mat waaw xam nga loolu yëf yi soxna si dem jël xarum cinq cent mille waaw donc bu demee di joxe ñaan bee ngay mujj di gómbaloog borom njiitu dara rek naan ko non ma dama ñëw ne waaye bu ñëwee nee ko xar yi nangam yi moo gën ne ko yi la waaw yi jar defee nga xam da nga ci sonn lool am na ñu sonn lool nag dala nga neexal sax njiitu dara ni ko neel madame yi jar naa nag jiital la naan bii bu ko defee bu mu ne bii mu ne ko boobu jar na boobu diwoo ko jënd bii mu ne ko jënd bàyyi fa mboq xam nga fu ñuy mujjeem hmm. xaru ndaw yi gën a a ñoral jëlal ji togg mi doo ci sonn añoo la quoi man xar moom na ndaw ko <laughs> aywa fekk xar bu daw joru ko aywa boutique la solution alaaji maa ngi koy junj léegi tey defe naa mooy ñu numéro bi nga xam ne wala dernier bés bi nga